الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziar ñoo li xam ne tàmbale woon nañ ko ci li nga xam ne mooy teg loxo ci ñoom mbéy yu bari yi nga moo nekk ci téer bi Jawahirul Maani tuddeewuñu ko njuumte wala suñ ko tuddee njuumte loolu dafay bokk ci min majaazil qawl waaye la ca nekk mooy njombe yu rëy rëy la ñombe yooyu rëy na ak leer na leer goo xam ne du jar sax di cay taxaw di indi leeral yu baree bare yi nga won ne lii bokkut ci diine yàlla ji ndaxte dafa nekk loo xam ne xam ne ñombe la maalum min diine bi darura la nit ki dina dafa aajo mu ab xel lekk bu tuuti di ko utiliser suñ indee ñombe yooyu dina xam ne lay ñombe la dafay doy sëkk ak barke comme ni ko sunu mbokk yi di di waxee moo tax kuy taxaw di ko jéem a défendre doo ko défendre sax na ko fay bànneeku fa ñukk nga fay nekk nga koy def ne laq bu ne yàq bu naqari dem dugg ci yeneen mooy li nga xam ne moom la mu Modou Kama daal yi bëgg a def jéem naa njëkk wuti excuse ne moom du tontu ci téere ba dafa am ci nu mu nekk ba mu demee ba ci kanam mu ne naa ca tontu waaye ba ñu ne tontu moo gën euh, tubaab bi danaan parle enfin que je te vois mooy waxal pour ma gis la waaw moom nag euh, olof njaay naan ko wax feeñ moom dafa wax commencé feeñ fi mu commencé feeñ mooy ne damay tàmbale di am jaaxle ci moom ndax dama yaakaaroon ne bokk na ci nga xam ne ci ñoom ñaraar ca ñoom pour jàng xam-xam boo xam ne tasiri la tàmbalee ci tàmbale ba di dem di yéeg waaye nekkul kon dafa xëy rek tàmbalee di bi téere sàngam téere sàngam dem ci google sàngam loolu ku koy defit su ji nga xam ne xamul luy xam-xam jàppee ne xam-xam la ku xam tuuti xam-xam su la déggee di wax di xam li ngay wax du xam-xam waaye tontu bi mujjee tontu loolu la ma commencé junj ma commencé jaaxle ak ci xelam ndax jàppoon ne ku ñor la koo xam ne dafay faham li nga xam ne moo sew ci ay wax waaye ma gis ne déedéet kon loolu foog ma taxaw ci tey ba leeral ko ko ngeen mooy bañ a dugg ci pam kàmb yu mel nii di bañ dugg ci. jëfin yu yu mel nii ci audio bi ñoom ne wàcce na ko euh, ne day tontu boog la nga xam ne daf may jàngal wala daf may wax naka laa war a radde jawahirul maani mu nekk lu reer lu leer lu lu reeru ndax la mu indi damaa ree ba sonn euh, mu teg ca nag léegi nag day jël la nga xam ne moom laa def ci jawahirul maani foog ne moo bokk sax mu ne di indi waxi cheikh islam ibn taymi rahimahullah ngir ma ñëw tontu ci waxi cheikh ci la xam ne waa ji kon dara comprendre du ko ci la ma koy wax lépp daa mel du ko déglu sax du début jusqu'à la jusqu'à la fin ci lañuy ñëw suñu parent daal ñëw indi ci la nga xam ne moo nekk ci téere bi nga xam ne ay bay kase la te bokk ci seen téere yi nga xam ne mooy téere yi fondamental te maa ngi koy wax di ko répété bi su mabbee rek seen i pas-pas lépp mab su mabbee rek dootu ñu jar dërëm te lu mab la sax xanaa kay leeral na mbir bi dafa mab la rek xanaa leeral ñu ko xamut waaye leeral ñi nga xam ne waaye boroom xam-xam yi yu ko xam ñëpp xam ne lu màbb la nekkul lu rëy lu dut ci ko xam ne danga koo xamut wala ko am da nga am taasub bëgg a topp la say baay say maam nekkoon waaye dëgg taxalaa jóg kon ñu ni ñëw rek xanaa def sax mooy du ko leeral xanaa kay day ñëw rek ngir boroom xel-xel daal di xalaat ngir ñi nga xam ne yàlla subhaanahu taala nam na ci ñoom njub ñu mën a amuk njub laay biir la ci benn biir mooy ne ngallawaay nag ngallawaay espoir bu ñu amoon ci yow bu ko yàq espoir ba mooy bañ a dugg ci gaalug tappale ndaxte bokk na ci mbir yoo xam ne ma jàpp nag tappale la mooy nit di wax wax ju leen nañ ngeen di ñëw di ko tontu di wax leneen lu waxut di jaar feneen fu mu jaarut ndaxte ca njëlbéen ga wax naa la ci boppam bu leen nañ nee naa la tontu ojo yi dinaa ñëw leeral la nga indi ci lëndëm ci taxti asxaas di tuddi téere yoo xam ne dafa mel ni danga koo liir te liiroo ko di ko dina la indil wax li ngay wax te nekkut lu weer dina la tontu ci la ngay wax ci taqdis ashxaas donte li ma tax a jug du leeral la nekk ci taqdis ashxaas ndax la ca nekk amut leen lu ci lënd mañ koy waaye ngir da ngaa ibbi bunt boo xam ne dinañu permettre ñu leeral mbir yu bëree bëri loolu ñaatoon la ko wax fan laa waxee ne damay ñëw jël ci ma maani ngir tontoo la taqdis ashxaas loolu sëñ bi waxuma ko sama lisaanul xaal waxu ko sama lisaanul maqaal waxu ko ndaxte na may jëfee damay waxee bokkut dama koo jëf ba pare wax la te wax naa la li tax jawaarul ma maani ñu koy jël déglu lu baax su fekkee da si ngeenum xel jawaahirul maani bokk na tax ñu bëgg koo leeral bëgg indi ñombee ca nekk pour wan ñi ngi ne yéen ñii jukk ne yaay da ngeen di woon nit ñi ci yoonu xam-xam amoo leen benn crédibilité ci loolu ndaxte gum téere boo xam ne la ca nekk waxuma la du xam-xam waaye jibril alayhi salaam musu koo sañ wax waxuma la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo ñëw taxaw fii naan ñu da ngay jëlub téere di wax téere fan la référence bi nekk nan lañ dañu way xam-xam bu ñu sosal loolu laa loolu laa bëgg a wane ne yéen amoo leen crédibilité boobu su fekkoon ne am na keneen ko war a taxaw taq taqdisul ashxaas du doon yéen kon jawaahirul maani musuma laa wax mu koo jël ngir tontoo la ko taqdisul ashxaas waaye dama ko jël bokk na ca la tax muy loolu wan amu leen crédibilité ndaxte li ngeen gëm fas ko tàmbale ba min alif ilaa dara du ca xam-xam dara xam-xamewu ca kenn munta toog di diraasa jawaahirul maani diraasa boo xam ne xam ilmiya la ndaxte la mu la mu lëmboo du ilm du xam-xam bi tax ñu wee xam-xam boo xam ne mooy xam-xamu sharia ndax loolu leer na kon ba nag naan ma yoon bi mu jël yaa euh, Fadel yoon bi nga jël mooy yoonu euh, bëgg ma tontoo loolu man waxuma loolu laa jël euh, waxuma la ko tey waxuma ko su waxuma la ko ginnaaw suba kon nag bu leen dugg gaalu tappale ndax amut njëriñ. te topp mooy ne ba may mbébét ne damay wax ci téere bii di wax ma ànd jënde njombee ca nekk boobu waxagoo da nga wax ci tax di sos xos déedéet loolu kon bàyyi ci xel. xanaa kay da ngaa doon catalyseur boo xam ne permettre nga ma nag la ma doon waaj ko waaj ko toxal di toxal di toxal ba li ñëwee mu permettre ma ma daal di gën a farlu ngir def ko ngir wane waare la ma ca bëgg a wane naam benn mbir bi nag léegi di ca topp mooy la nga doon jéem a tontu ci li nga xam ne moom laa wax li tax may dal ci taqdisul ashxaas ci ne dama su mabbee tarixa tijaani mab foofu la amee jaaxle gu mag a mag a mag damaa jàppoon ne dama amoon yaakaar ci yow ne dangaa def ab dirasa boo xam ne dirasa boobu tasiliya la dafa nekk loo xam ne dañ koy nekkut ay liirantu wala nekkut ay lu ñu farantu lan la musa jàpp ci yow donte maa ngi koy jàpp ba tey sax waaye yii may dégg nii suy bare sama conviction boobu damay ragal dina deñ ndaxte lii feeñ ci wax ji mooy kon xamoo lan mooy màbbalub aqida xamoo lan mooy yoonu raddub téere lan mooy yoonu naqd xamoo ko te sori ko koo xam su fekkee ne danga ma li nga ma digal ci audio bi ne nga jàpp lu dul rek nga jàpp ne te lu la sax nag des fois def lu bari mooy ne dooy mën di bañ a tontu <laughs> mooy da tontu rek mooy da nga rek ba nit ñi jàpp ne tontu nga waaye def naa ne may jàpp ne yow sa biir sa diggante ak yàlla xam nga ne li nga doon tontu du xam-xam. ndax soo ma ñëwee ma ne la téere bi su mabbee tariqa tijaaniya du mab nga may joxe exemple ci saxiixul Buxaari eh, di ma wax foog nga lii téere sàngam téere sàngam téere sàngam ngir nga mën a xam ndax sëñ bi loolu xaw may waxi lan maa ngi ñoo teg ci baaraam ak baaraam ma nga xam ne li ngay wax nii su ma yoonee nga bañ ko di def nga xam ne li ngay waxee nii du xam-xam wallahi du xam-xam jigewut xam-xam mooy jawaatul maani su maboon tariqat tijaniya daa di màbb loolu dafa am gàccal ñu ko nekkoon ci man sax wala la ma waroon mooy ne tariqati lii di jawaatul maani damay wane màbbam ngir wane màbbaayu tariqat ya ndaxte loo xam ne lamu taxaw ca lañ ko tabax mooy gis naa ko faatu ay junni at mu jox ma nangam a sangam pas-pas yoo la mu taxaw mooy gént naa na mu taxaw ma ci xadisam ne dañ ko sos euh, du ma mën a ñëw sax dañ koy mabbal moom ndax dafa mus xanaa dañuy wane ne nga xam ne moom la mabbee euh, te loolu bépp borom xel daal di koy xam kon Jawahirul Maani léegi nag moom nee na ma su Jawahirul Maani mabboon sax dama ma mabb du tax tariqa tijaani mabban am yeneen téere ñu bind ba pare moo tax may des fois may dutee nag ma ne waa mbokk mi ndax li muy wax dañ koy xalaat ci xelam mu ne am lu fa nekk te nekkul ci euh, téere bi nga xam ne mooy aljaamia nga xam ne nañ ci dil si xam ne Mohamed Mishri moo ko bind Mohamed Ibn Mishri ko moo ko bind euh, da nga xam ne moom nekkoon na koo xam ne sax doon na jiite moo doon jiite Cheikh Ahmed Tidiane Ahmed Tidiane moom daawul jiite lu du këram loolu tamit bëgg naa wax sax lu tax lu waral loolu te am na ñoo dañ koy indi di ko indi comme daf koy fadail euh, tayib waaye taxuñoo jug tey euh, dinañ ci mos a waaw mu ne su fekkee ne kon sax jawaahirul maani dafa mab boon loolu tax mabb talaqati yoonu tax kon ndax sax am na téere boo xam ne bind nañ ko ci jamono jooju ko da bokk ci ndongoom ya yoo xam ne ay mbir fo waa bi xanaa xamoo ne lii nga xam ne mooy pas-pas du am li nga xam ne mooy euh, nas لي اجو تي والو للي تد المسائل العلميه عمري المسائل العلميه والمسائل العمليه المسائل العلميه سو بن تيرا مبي كي مساله علميه موي ليغا خامني موي باس باس تيري نيو تي دي واخ لما واخ ييب داني ماب نختي كيغا خامني موي آه محمد ابن مشري كي تيري مبد الجامع du fa indi lenn ci pas-pas lu wuteeg pas-pas ba nga xam ne Jawaahirul Maani indi na ko loolu mustaxil ya cheikh kon su Jawaahirul Maani mabbee ci pas-pas boo xam ne tiijaan yi dañ koo fas waaw lan mooy beneen téere dafa war a màbb ndax la ma lay indil ci Maani mooy la tiijaan ya fas ñu ñëw mabbal ko daal ne lii amut dalil teguñu ci alquran teguñu ko ci sunna te yow nga xam ne ci Jawaahirul Maani lan bokk deen koo fas li may indi jawahir maani lépp tijaan yëpp ko fas ñu ñëw màbbal loolu nga naa ma ban téere beneen wala téere sàngam moom ni ko bind jamono loolu mooy mooy xam-xam ana xel bi sa xel sax mu foofu ndaxte bis buñ màbbalee soo ñëwoon ci lislaam mabbal benn téere boo xam dañ koo bind téere ahlu sunnati wal jamaa bu ñëw di fasal ñëw di saxal li nga xam ne mooy al asma sifaat daal ne lii mooy tariqatu salaf nga ñëw daal di koy màbbale ne kon liiru tariqatu salaf beneen téere beneen boo mënti jël buy ñëw di wax li kooku di fas di saxal kooku di saxal nu muy mën a tee taxaw te ñuy saxal même chose bi wala boog maa bëgg a wax ne boog téere bi Muhammad ibn Mushri bind moom dafa wuteeg téere bi nga xam ne Jawahir Maani moom la Ali Harazim daal di bind loolu mooy wax kon bu nekk ñaari téere te téere yitte gi nga xam ne moom la Tijaani jox Jawahir jox joxuñu ko Ali Harazim maanaam xam ya Cheikh su ñëwee di naqdu ab eh, ab ta ab ab kuréel mundu zaman su ñëwee di ko naqd du ñu amul fenn fu ñuy ñëwee dañuy jël téere yépp yu biju ñooñu daal di bind ñu daal di koy naqd mënuma ci indil benn borom xam bu doxee noonu wala bu wax li ngay wax waaye dañuy jël téere ba wala téere yi nga xam ne mooy nekk ya gën a fes ci kuréel googu ñu daal di koy naq daal di koy jël fondement ya jël base ya daal di koy naq ba ñu xam ne mbir ma wérut waaye du jëmmi ne foog ñu dem ci téere yëpp daal di koy tudd wala suñ tudd yeneen téere rek mooy xalaas ndaxte tudd benn téere buy saxalu pas ci ab kuréel te waa kuréel gëpp daal di koy fas loolu dafa doy sëkk di demaat tudd yeneen téere yoo xam ne ñoom la ñuy saxal ci pas-pas moom la kële di di saxal na loolu mooy xam-xamu ci ci naqd te bi Jawahir Maani am na sax ci ñoom ñoo xam ne dañuy wax ne كي دي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موكو بين سوري مثل ماني بيغا خامني ابن با ابن بابا الشنقيطي موكو بين جاري زوم با امنتي بن بيت مغنان وقال فيه المصطفى كتابي وانا ذا الفت للاحباب نينا كي دي المصطفى مو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا تيري بي من تيري مو جوهر معاني من ماكو بندل نيغا خامني مو نيو سامي سوبي ناتي يانيو نيو جاب نيو سوبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو لي يهودي دون وخ رك ñun ñooy doomu yàlla ñun ñooy soppe yàlla yi ñoom nee na ñoom ñooy soppe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko bind kon loolu suñ ko saxalee ne téere bii nii dafa màbb nit ñi ñi ko gëm jàppee ko gëmin boobu ba sax deli fadail di ay barakaat yoo xam ne ku ko def sa kër da ngay am da ngay am sàngam ki sàngu ci baraka téere boo su màbbee tariqa bi daal di màbb ndaxte la fa nekk mooy pas-pasu tariqa bi sëñ bi yaa ngi dégg ma bu baax téere bi su mabbee na la tariq mabbee ndax dafay mabbal la nga xam ne mooy adaala ka nga xam ne moom moo moom la ñu askane téere bi ndaxte yéen jàpp ngeen ne la ci téere ba moom moo ko dicté soo leen cay weddi mu ngi cay weddi yenn mbir waaye li ñuy tudd nii mooy pas-pas yi nga xam ne moom ngeen gëm waa Sénégal sax di nekk te moom lañ gëm moo tax ñuy indi li nga xam ne moom la ci Cheikh Omar Fouti indi ci Rimah su demee ba kon weeñal feeñal ne téere bi la ca nekk mooy ne yonente bi sallallahu alayhi wa nee na ma te ngeen seen cheikh boobu moo koy wax te yonente bi faatu moom ay junne at moom mu doog a juddu feeñal loo xam ne bañ ba bañ bu ci dal dee ay wax yoo xam ne wax yu rëy yoo xam ne dañuy sikki sàkk ndax na wér na nañ la ñuy wax mooy naka ko wax moom mën nañoo def eh, xukmul kufur ci moom wala déedéet waaye duñ werante ni kufur ba wax la loolu su ko mabbee ñu xam ne kon téere sàngam ma nga ca te kañ ko askanele mooy ka formé tariqa tijaaniya la muy mabbal mooy fondement ba ca bopp ba mooy ka nga xam ne moo indi mbir ba ndax li ngeen fas jële woo leen ko fen lu dul gëm ngeen gëm ne kii nii moom ku saqala du sosal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon cheikh bi waxi soo demale beneen téere ndax téere boobu loolu du waxi dara waaye fi ma gën a réewee nag mooy ba ma indee saxil Buxaari di ma comparé saxi Bukhari ne su màbboon sunna du màbb déedéet sëñ bi loolu sax fiihi fiihi ma fii waaye dafa wute ndaxte Cheikh al Bukhari nekkul ne Bukhari dafa jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam direct Ali al Harazmi dafa jëlee directement ci Abul Abbas kon soo doon comparé mu nekk comparé bu wér bu mantiqi comme ni nga koy waxee bu logique bu xam-xamee ngay comparé Aboubacar ak yonent sallallahu alayhi wasallam sallam lu ngay comparé Ali al Harazmi ak Cheikh Ahmed Tidiane ndaxte Ali al Harazmi moom mooy raawi bi. moom dafa jëlee directement ci Ahmed Tidiane Bukhari jël wu directement ci Cheikh Ahmed euh, ci Cheikh Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon su demoon ba téere Bukhari bi daal di màbb euh, dañuy xool ak yeneen riwaay jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye su fekkoon ne saxaaba yi ñoom dañoo màbb day màbb ndax ñoom ñoo jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu la rawaaf rafida noonu la ñuy def ngir euh, foofu lañ bëgg a jaari ngi màbbal lislaam kon comparaison boobu noonu mënta nekk ndaxte kii du nekkul ab riwa ab ko xam ne ab mu dafay ñëw di di settantal wala boog di nettali ay nit ñu nettali nettali ba egg ci yàlla Cheikh Ahmed Tidiane daf ko jëlee direct kon moom su riwaaya boobu mabbee rek sa njëlbeen ga léppay mab boo mooy ba waxi ne Sahih Bukhari su mabboon du wàññi wala boog du mabbal euh, sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu tontu bu bu suufee la boo xam ne ngaa yem ci rek ci ci kaw waaye soo demee ba xuutal ko ca biir saxiil Buxaari yi Buxaari daal di koy bind borom xam mi jamono yi ñoom ñu dëppoo ne mooy ki mooy téere bi gën a wér ci xam ne mooy téere sunna yi daal di daal di dëppoo daan ne Buxaari la fa nekk te nekk ay masanit nekk loo xam ne dañ koo jokk lépp wér eh, daal di tagg Buxaari ñu dem ba ci jamono ñu ne Buxaari la fa nekkoon lépp wér wala wér loolu dafay mabbal lu bari ci sunna la muy màbbal mooy kon intégrité boroom xam-xam yi ñu ko taadil yépp damuy màbbal mooy kon xadis bu wér sa door ñu ko xam ndax fekkee Buxaari Muslim dem na ba wératut kon xadis moom mënatula wér sax ba wala mënu ci cee doggunu wér na kon loolu mun naa màbbal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax boroom xam-xam ku dal ci Buxaari Muslim dal sa kaw xam ne fa nga bëgg a jaar fa nga bëgg a jaar mooy eld egg daal dal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye sëñ bi sax ñaari mbir yi dafa mekk dafa mel ni yàlla ak yàlla ak kiyaani nga naan ma euh, su Buxaari ak euh, su Mansuur Buxaari su fekkee dafa bind ab téere boo xam ne la mu ciy indi mooy dana lii mooy aqidatu ahlu sunnati wal jamaa ñu fas ko ñun nit ñëw wan ñu daan nañu Buxaari la mu wax yépp loolu dara wéru ca su fekkee ne am na yeneen téere ñu bind di wax aqidatu ahlu sunnati wal jamaa yu ñëw di findal Buxaari mabbal Buxaari mabbal na lépp xanaa déggoo wax ji. rawatina nag lii moom sax waa ji moom da koo jëlee directement ci sëriñam ñuy wane ne si wax ji dafa nekk ay waxi sëriñ ba wax yooyu mënut a jugee nekk wax koo xam ne dafa nekk ku dëggu mënut a jugee koo xam ne ci feqala mënut a jugee koo xam ne la muy basé mooy alquran ak sunna la suñ ko màbbalee tariqa bi du màbb waxuma la màbb sax waaye suuf see koy wan mu dugg ci suuf kenn dootu ko gis. li kama di wax fii mooy ne. waaw fexe ba nga liir ci bala nga mën a ci joxe maanaam il faut nga liir téere sàngam téere sàngam ba téere yi wax ci moom téere lool du waxi lool loolu du waxi dara loolu wax yoo xam ne kamul ko ko tàmbalee wax yoo xam ne ko fenn du waxi dara du waxi len loolu jaruma laaj ku ko jiit te doo soo ku ko wax ku ko wax ci borom xam-xam yi waaye li mu bëgg xamal rek mooy moom bañ a sori mooy kama jàpp naa su fekkee sax ñetti at maa ko màggee <laughs> su fekkee war na ñetti at sax. Eh, su fekkee ne am xaalis pour jëndi téere jàpp naa ne suma mën a ëppul xaalis ëppoo ma xaalis ba jiitu mooy loolu su fekkee ne sawar ci liir jàpp naa ne soo ma gënta su ma la gënta sawar gënoo maa sawar su fekkee bëgg xam-xam di liir rek waxu duma ma ñëw doggu ne ne doomu ëpp ëpp yaa ma ëpp lu maa la lu may liir de waaye mun naa doggu ne mënoo liir lu ëpp li may liir su fekkee am xel bu mën a dégg la nit ñi la téere bind jàpp naa ne su ma la ko ëpput dama ko ëpp te ni ngay waxee nii damay jàpp maa la ko ëpp fuuf su fekkee ne jàng taasir yi jàng-jàng boo xam ne taasir yi la bu commencé ci alif di yéeg di tadarruj bokk ceeg mu nekk loo xam ne jàngi ko ci ñu wér ñoo xam ne dañ sama dafa set wecc maa la ko ëppale boobu damay doogoon maa la ko kon ñëw naan ma leeral téere sàngam leeral nga te bu gaal bu ci dugg na ko baaw ak rek ñoom dañuy waxantoo jàppal ne loolu liir rek liir naa ko fukki yoon toog noppi xamale naan lii béy leen naan bay tëb di dal moom la ñay mi naan daal ne toog ne nem noppi te nag xam naa ne doo mën a doo mën a accuser kuy bàkku ndaxte xam naa ne moom ko mën a wax ku gëm téere ji waxit ma an dafa nekk ci bàkku moom ku ñëw taxaw di wax ji doo ko dara xam naa ne wax ji moom doo ci moom dara da nga banoon rek te konte rek wax ci xam waaye kantaa nag euh, naan ma foog nga liir di téere sàngam wala soo liiru téere sàngam loolu euh, nañu wax nañu dem rek ba nga tudd fi lu warta tudd wala wax fi loo warta euh, loo warta wax ci tariqa tijaani boobu noon ngay wax ñu xam ku ko lii rek ku liirut ki nga xam ne mooy Mouhamed Michri téeréem boobu amut solo ca tijaaniya ci tariqa tijaaniya ñi koy ñi ko yittewoo bariwut te lii firnde mbir ba sax mooy ñu bari ca tariqa tijaaniya téere boobu duñu wax ba tudd ko waaye suñ ko tuddee lu raal lañ koy tuddee bokk na ca la siiw ca ñoom ne Mouhamed Mouchiri bii moom nga xam ne moo doon jiite Cheikh Ahmed Tidiane ba mu nekkee te mu doon ci këram te wax ci kaw ne war nañoo wax sax lu tax mu doon su waa këram lay jiite dootu jiite feneen la siiw ca tariqa ba comme ni ko Cheikh Taqi al Hilali di eh, indee mooy ne siiw te mu nekk mu tam yàggoon lool ci tarakati tijaan ci yagon lol lool may sédé la siiw mooy ne ñoom dañu téré boobu joxuñu ko benn bi té dañu jàpp ne mohammed mishri bi dafa def benn mbir bu graw mooy dafa wota wilaya ci jamono cheikh am ma moo cheikh bi moom nekulon ko satisfait trop ci téré boobu bal sax daf ko digulon daf ko digulon mu bañ dëkk ak mom ci benn dëkk ndax dafa wota wilaya ci kanamu cheikh am te cheikh am faatoogut waye sax su fekkone dem nañ sax téere boobu ngeen jox ko yitte bi ko jawaahirul maani jox suñ ñëwee wax ci jawaahirul maani màbbal ko màbbal na bépp pas-pas boo leen fas comme ni ma expliqué ca euh, ca euh, ca kaw euh, kanta nag la nga ca teg ci waxu cheikh al islam ibnu taymia rahimahullah nga leen koy jéem a comparé lii ba tey foofu mooy xelu suufe mi mu doon mi mu doon wax Euh, ndaxte sëñ bi ñaari mbir mu Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah bis bu ñu demoon ba feeñal Cheikh Islam Ibn Taymiyya rahimahullah dafa feeñal moom la mu doon wax wérut la mu doon wax dëppool ak sunna kon dañuy jàpp ne mu bokkuloon ci ahlu sunna waaye pas-pasu ahlu sunna li nga xam ne mooy pas-pasu salaf yi mun ci yàq dara ndaxte Cheikh Islam Taymi rahimahullah ngeen bëgg a gëm loolu seen ay nit moom ay sos suñ ko defee ba muy dem ba jàpp di ñoom te ñu xam ne dëgg amoon na sos Cheikh Islam Taymi rahimahullah borom xam-xam li borom ahlu sunnati wal la mu waroon liggéey jottali la mu waroon comme ni ko yeneen borom xam jottali woon suñ demoon ba ne sax moom ay waxam dafa wuteeg sunna loolu du wàññi dara ci pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pas salafiyatu ñu ñu koy woote waaye Cheikh Ahmed Tidiane sëñ bi cheikh bi moo fondé tariqatu tijaaniya intisab bi ci moom la moom su màbbee lépp màbb kon munoo taqale ñaari mbir ba muy indi waxi cheikh islam ibn taymiya salafiya dañuy intisab seen bopp sëñ bi mooy a salafu saalih kon ku bëlee bëgg a màbbal mooy la ngay màbbal mooy salafu saalih yéen fi ngeen indi saw seen bopp mooy at tijaaniya ku leen bëgg a màbbal fu muy màbbal mooy fan mooy Ahmed at Tijani pourtant dafa yomb comme bonjour mel ni euh, tàmbali un plus un égal deux suñ bi Cheikh Islam Taymi rahimahullah nag euh, li ngay wax di ko indi naa ko jéem a déglu indi cay indi cay leer la ndaxte li tax ma ta koy wax mooy ni xam lu mu tuxal imma soo ko demee doo ko fekk wala la muy wax ak la waa ji wax bokkut noonu lay doxalee na ko dimbale sama xarit la ngir dimbali ko ko dinaa dellu ci yooyu ci islam téeméer yooyu doon yàgg ngeen koo def da nga li nga defar mooy rek ngeen ko fay def ñu koy jot yaakoon ak Moustapha Sylla ak def ngeen ko fi Moustapha Sylla def na ko ba sonn kenn faaruyu ko ndaxte ñun suñu yittewul ay nit yéen ay nit moo leen yitteel ay nit ñoo leen ñoo leen jiital ay nit ngeen jébbalu ngeen am sëriñ ñun li ñu am mooy ay jàngalekat ay boroomi xam-xam waaye tey naa ci dellu si tam ci dellu si du jëmmi défendre Cheikh Islam tey mi rahimahullah déedéet du jëmmi ne dafa am yoo xam yu lënt waaye jëmmi ñëw daal di taxaw ca ba tey ngir leeral li nga xam ne mooy ñàkk amaana ilmiya gi nekk ci yow gi ngay doxalee te mu nekk lu lu ma naqare nag ndax sama xarit ngay doxalee nii te nekk xale bu ndaw dama ko fenn tàmbalee nii loolu mooy tax dinaa dellu ci waxi cheikh islam yi tey mii benn par benn waaye léegi su ma ci dellu seen waxi cheikh islam demee ñëwal ci waxi euh, ki nga xam ne mooy waxi euh, euh, ki nga xam ne mooy Ahmad Tidiane sama yow liir nga al ifaadatul ahmadiya ñëwal ñu xool lan moo ca nekk nan la ñuy déggee waxi cheikh islam Mohamed Tidiane bi ngeen ñu mën ci xam déggin bu wér déggin boo xam ne dina bokk dégginu sunna dinañ ko mën a teg ci ci xam-xam sabab lingal jaamea indil ñu koy la nektal jaamea loo xam ne day ñëw di leeral la mooy njombe yi parce que li mu wax yëpp indiloo ma lenn <laughs> amul fenn foo ma indilee ne lii nii wérut wala lii nii lii dafa dëpp ak sunna laaj wala tontu woo loolu dama indil waxi Cheikh Sam Timi xam nga kon yooyu doxalee noonu moo tax ma nga dégloo pare dama ne kon ñii nag ñoom dañoo jàpp ne ñoom ni ñu mel noonu la nga doon déploré te defuma ko mooy ne man nar ma tooñ taqdis asxaas dama ñëw di indi waxi Cheikh Ahmed Tidiane déet man loolu doxewu ma noonu yow yaa jàppee loolu man mosuma doxee noonu na tax ma koy def wax naa la ko waaye la nga wax te wérut ci tax taqdis soo naa ko indi waaye yow léegi indil ma li mu wax te wérut waaye da ngay ñëw di déploré loo xam ne moom ngay def. wala xalaamun lana wa xaraamun aleykum wala boog yéen moom lépp dagan na ci yéen rek man su ma jàppoon ne sa doxalin yow wérut doxalin bu bon la yàlla xam duma ko doxale waaye far na yow nga ma ma doxalin boo xam ne ko pare di ko doxale loolu sëñ bi euh, wax dëgg yàlla du rek lu lu lu xam-xame yow mi nga xam ne sëñ bi yaa liyeet téere yi nga xam ne ñooy wax ci téere tijaan yi ok da nga war a am kontaan yaa liir charh yi nga xam ne def nañ ko ci jawahir maani yaa li ok da ngaa war a kontaan nag koo xam ne liirul loolu ñëw di ci wax man de su fekkoon man la may yore ak écrasé la jàll kay nappaaje sagam kay yow liir nga loolu kay da ngaa war a gaawantu ñëw ne sàngama ki sag nga wax nga ko wéerut déggoo ko xamoo ko téere wax nañ nangam waaye doo ko def ndax xam nga li nga wax yëpp waxi kese la rek ndax mënoo ko maa ngi xaar nga def ko ñu xool Euh, dama bëgg nga gën a gas pax ba dugg ca ñëpp ñu lay jàppale te gëm la nga gëm dugg ci pax jooju ñi nga xam ne ñu ngi am xel di seetaan déglu war xam indil ma leeral yow mi yooyu indil may leeral yi nekk yooyu ñëw di wan mbir yi laajte yi ma laaj question yi ma laaj nga indil ma ko ba ma laaj ba tey mooy la mu wax ci yi ne dafa amu fat man saxaabi moom fat ban ñan ñoo wute yàlla borom xam yi wute andil ma ko bu ma nee naa ma Cheikh Sam Tiimi ne naa ñëw ci waxi Cheikh Sam Tiimi andil ma ko fan la fan la ko borom xam yi wute lan mooy xutb fan lañ koy fekk ci alquran ak sunna na mu ko andil wax ci moom lañuy wax ci ci ña xam ne ñooy tijaaniyoon ñi gëm taraqatu tijaaniya la mu leen garantil fu mu ko fekk fu mu ko jëlee lan mooy dalil bi ci loolu loolu fan lañ koy fekk loolu naka la nekkee xam-xam. andil ma ko la nga liir ci téere yooyu loolu nañ ko expliquer ñu xool barakallahu fekk léegi nag ñu ñëw ci ñetteelu ñoom bi nga xam bëggoon nañ ko tudd ci téere bii di jawahirul maani déedéet déedéet soit ci li nga xam mooy jawahirul kon njëkkoon nañ fi indi ab tomb bu njëkk ci ñoom yi nga xam ne nekk na ci téere bii mooy gëm gi nga xam ne képp koo xam ne gëm nga li nga xam ne mooy tariqatu tijaani dañ koy fas da fas mooy ne seen sëñ bi ki ko sas ki sos seen tariqa bi moom dafa tase yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala doon taseeg moom mu jox ko ay weer jox koy ngëneel loolu li nga moo koy màbbal mooy li ci jiitu mooy ne ñoom seen bopp amul kenn ku mën a taxaw ne mën ngaa jiima layal loolu ci alxuraan wa sunna amut ndaxte daje na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ma nangam ak sàngam loolu mënoo koo gëmee lu dul teg ci waxam nga gëm waaja waaye mënoo wax ne lii nii mu taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran ay sàngam di ko fekk xadis sàngam di ko fekk kon kuy doxalee noonu ci pas-pas ndax loolu day dugg ci pas-pas mënuñoo gëm ne la nga kon boog mënatoo ñoo gëm loo ñu ne yow sa yoon mooy yoon alquran sunna déedéet ndax kon yow sa manhaj bi nga xam ne mooy tamit talaqi dacaa bokk kon nit di dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lool xam nañu ko ñi nga xam ne ñooy boroom ahlu sunnati wal jamaa ñoom la ñuy xam mooy naqal mooy dañuy dem ca texte ya del ci téere alquran del ci kutubu sunna yi del ci kutubu xadiis yi kon koo xam ne noonu ngay doxalee su fekkee ne ñoo toxal jëme ci yow daan ne da nga ne lu ma lépp loo xam ne wax naa ko su fekkee da gis mu dëpp alxuraan sunna xam leen maa ko wax su fekkee ne dafa wuti alxuraan sunna xam leen ne waxuma ko doonte maa ko wax loolu wax jooju dañ ci am bi mbir imma waaju waxu ko dañ ko koo sosal imma mu nekk koo xam ne peut-être daf ko wax euh, dafa dem ci mujjum jamono mu daal di tuub daal di génn na mu doon doxalee imma mu nekk noo ko jëm du waxi dara wax yoo xam ne waxi pour ndaxaate la ndaxte koo xam ne sa doxalin daf cay bokk yow nga da ngay daje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo di ci indi pas-pas bay nit di ko gëm di ci indi ay ngëneel da cee bokk di wax yi gént da cee bokk di wax euh, euh, ay mbir yoo xam ne nit ñi mënuñu koo xam Euh, waaw kooku noonu mënutoo ñëw taxaw nañu wax nañu xool leen sama wax fu mu dëpp alxuraan sunna fu mu ko dëppoo nat yow sa doxalin du noonu euh, loolu kooku mun a wax mu saf nit ñi mu nekk loo xam ne mën nañ ko dégg mooy la ay imma yi doon wax comme ni ñu te Abu Hanifa wala imam seen yoon imam Ahmed seen yoon moo nekkoon alxuraan sunna amul lenn loo xam dañ koy fas wala dañ koy wax ñoom lu dul ne dañuy jëm ca ca ca teg si amul fenn fu ñu waxee te seen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu waxee ñoom euh, gént moo tax ma ne def leen nangam kon su boobaa ñoom suñu waxee ma waafaqa sunna foofu madhabi waaw boobu dañ leen di gëm ñu suñu gisee seen wax daal di juwóog sax li nga xam ne alxuraan sunna yi xam nañ nekkut ne loolu lañ ca jubluwoon dañoo juum kon mun nañu wax ne ñoom fekkee ne ñoom wax nañ juumte la nga xam ne moo dëpp ak sunna mooy li seen mooy li seen wax na ñoom na doon doxale waaye comme da ngay doxale mooy tas ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom loolu mënta nekk loo xam ne mën nañ ci taxaw euh, wax jooju di ko di ko ci taxaw boog wala di ko indil nit ñi fu ñu fu ñu toll ndaxte wax jooju waxe dara su fekkee ne ki ko wax moo ko wax wala su fekkee ne waxu ko ca mujjum junnoom ci ak tuub euh, wala fekkee doon doxalin ba ko moom du waxi euh, wax joo xam ne amut benn amul benn qiima. noonu doon na doy ne mu nekkum ñombe doon loo xam ne euh, lu sori xam-xam la mooy ne kenn mus ko woote woo ci ñi nga xam ne ñooy sahabatu kiram ñoo gën ci xeet bi kenn mus ko woote ci am méthode islam te loolu dafa nekk loo xam ne. foog ñu ci bàyyi xel euh, walaw kaana xayran la sabaquna ilay amut lenn loo xam ne yiw la lu dul ñoom ñooñu ci amut lenn loo xam ne njub la lu dul jiitu ñu amul lenn loo xam ne ko war a fas lu ñoom fas nañ ko kon loolu foog ñu nit ñi xam ko te mel te yàggal nit ñi ci mbiru naan nekkut lépp lu saxaaba def baaxut ma ne lépp loo xam ne jamonoy saxaabatu kiram kenn fasu ko woon koo ko fas seen ginnaaw la nga fas bi daagu bon la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko woon te soo ko bawut fa mu la jëmale mooy fa mu jëmale mooy euh, euh, ci merog yàlla subhaanahu wa sunu sunu borom euh, bokk na ci mbir yi doon tuddoon mooy ne seen cheikh bi dafa tudd ne moom amul kenn koo xam ne mën naa dugal ki nga xam ne mooy sa taalibe wala boo kenn mënta dugal kenn àjjana bi la ku munti doon nag mënoo ko dugal nit àjjana ak lu munti am cay bàkkaar te yàlla du ko xisaab wala boog du ko àqaab waaye moom moom am na loolu loolu mooy lay dugg rek ca wax yàlla subhanahu wa taala mu doon tere nan la taqfu ma laysa laka bi ilm inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula maa ne waxal ci yàlla subhanahu wa taala mu mooy te mooy loolu mooy buntu njombe yëpp mooy di waxal yàlla di eh, sosal yàlla sunu sunu boroom te wax jii nii tamit am kenn ku mun a layal ci alquran ak sunna lu dut ne da ngaa gëm pas-pas bu yàqu mooy pas-pasu nit day dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw faatu mu koy joxe mbir wala boog da koy gént mu koy joxe mbir euh, loolu que day xam ne kon yoon bi ñu jël di yoonu boo xam ne mun nañ ko lay ci ilm nañ ko layal ci xam-xam mun doon xam-xam ndax la mun a doon rek mooy ne kon boog man euh, na naa yonent bi sallallahu alayhi wa naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nu mun a xamee lu mel nii nu mun a xamee ne moom yàlla subhaanahu wa taala mun na koo may mbir sàngam yàlla subhaanahu wa na koo defal sàngam fan lañ koy fekk ci alquran doo ko fekk kenn mënu ko layal foofu fan lañ koy fekk sunna feneen boo bokk ci manhaj bu bees boo xam ne saxaaba yi ko woon ay imatul islam xamuñu ko gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis na moom faatoo wala ba gis ko ci gént a xam ne yow nit ko wax ko daal koy noppi waale waaye da koy wax nit ki ba nit ñi loolu jàppee loolu am am nekk seen pas-pas ba ñu gëmee loolu sax ba mu leen pousse ba ñu dugg ci ay ba ñu dugg ci mu leen motiver ba ñu dugg ci ci ci yoon woowu ak di gàccal loo sax nag te ndaxte loolu moom ku mën a gàccal loo nit la ci defi bàkkaar euh, loolu mooy gën a fés ci li nga xam ne wax na ko ba tey ci jawaahirul maani dina la topp mooy ne dafay gën a firndeel rek mooy ne soo demee ci tasawuf seen euh, ñi amay turuq yi nga xam ne am nañ ay yoon yu sos ginnaaw ba fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jógee da gis ne képp ku nekk day ñoddi jëmale ci boppam su ñoddee ba taw yi da ngay naan waajaa ak nii lu nekk dinañ ko dinañ ko euh, dinañ ko iddia euh, ci ay fadail loo xam ne kenn musu leen ci jiitu amul kenn koo ciy jël liir ko mu wax ba pare lu na ngeen waa jàng da nga koy joxoñ ne kii ko féete kaw waaye soo paree liir moroom mu waxaat leen lu gën a weesu loolu nga ne kii yaa ngi doo ci jóge loolu rek mooy ku nekk di jéem a ñoddi di jëmale ci kaw ngir ëpp moo tax bokk nañu wax ci wax maani man taraka wirdan min awraadi almashayikh li ajli fi tariqatina hadihi almuhammadiya allati sharafaha allahu ala taala fi dunia wal axira fala yaxaf min cheyin yusibuhu la min allah wala min rasulihi شيخه أيا كان من الأحياء من الأوات أما من دخل زمرتنا وتأخر عنها ودخل غيرها تحل به المصائب دنيا أخرى ولا يفلح أبدا نحن وخني كون كيب كو خامني نينا بايغا ليغا ما سون ويرد بي داري دوغو ولا بو كيب كوم بايغا ويرد سي بن اوراد ييغا خامني مشايخ نينكو اندي نغي nga دوغو سونو بوس بي سونو يون بي nga خامني يالا داف جيل داري كوي آه، تك سي بولا بولا كوي تيرال سي كاو يينين يون يا كوكو يالا داف كوي يالا ماي sécurité fii ci àdduna wal axira moom dara du am lenn lu muy ragal lu koy mën a laal moo xam ci yàlla lay juge wala boog day jóge ci yonent bi wala day jóge ci benn cheikh dara du ko ci laal koo xam ne dafa dund wala boog dafa faatu ñuy dund ci ñoom wala ñuy faatu mu ne képp ko dugg na sax sunu mbooloo mii ba pare da cay génn kooku de eh, dafa masoy bi da koy dal fii ci àdduna ak axira te du musa texe wala yufleex taxaw seetlu bi ca mooy ne kon da ngay gis ne waxam ji nii am na ñombe yu bare baree bari yu ci nekk yu dul jeex bokk na ca mooy nit ki ñi dee sax ci euh, macheikh yi ñoom mën nañoo lor nit ndaxte boo waxam ji ne dara mënu ko loor moo xam ci yàlla lu jóge loolu dafa jur àla kanam yàlla subhaanahu wa taala euh, wala mu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa a jóge ci moom dem ci kenn Euh, ak tamit euh, ak yiw mënta jóge ci moom daal di dem ci ci kenn euh, rawati waxatuma nag cheikh yi nga moom lay moom lay tudd rawatina nag ñu nekk ñoo xam dañoo faatu ñu daal leen def ci ñu daal leen laxas leen muur leen gas ba mu xóot daal ci dugal kon kooku même ku duggut sax jëndoon tariqa bi amul lay tiit ci ñoom ndax mënuñoo lor kenn yàlla subhanahu wa taala kese moo mën a moo mën a jariñe moo mën a lore waaye waxam ji nii lañ cay dégg kon mooy ne kon ñeneen ñi mën nañoo jënd ci neen tariqa daal dugg ci tariqaam waaw loolu mooy kon de ku ràcc jëmale sa sa bopp moom mu daal di dëll euh, ñooñ dara du leen dal waaye képpam jënd nga tariqaam dugg ci beneen ñooñ tamit kon euh, musiba daal leen dal waaw léegi dañ koy la ñuy laaj ci fii loolu fan lañ koy fekkee alquran ak sunna fadl bi mu def daal koy jox tariqaam fu ñu koy fekkee ci alquran ak ak sunna fan la ñuy fekk mbir mi ci alquran ak sunna ñu mën koo dirasa dirasa mu dirasa tey mooy lu munta nekk la lu kenn munta euh, munta layal la ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa wasallam li nga xam ne kon moom lañ mujjële tey mooy li nga xam ne mooy masala bi nga xam ne bokk ci masala yi nga xam ne daa bokk ci seen pas-pas nga xam ne doo ko fekk ci benn euh, téere sunna ñu ko fay waxtaane mooy li ñuy wax almadad mooy ne soo eh, alqawm soo doon jël seen i seen i istilahaat wallahi istilahaat la yoo xam ne waxuma sax xaqiqa ba waaye istilah bi soo ko fekk ci ci alquran ak sunna wala boog eh, soo ko waxoon imam malik dat koy limal du ko xam imam shafi du ko xam imam ahmad du ko xam waxuma la abou bakar omar ak osman ak ali malet boobu kon ab dex la goo xam ne mel ab dex goo xam ne daal day wala ngaan mooy day jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dem ci yonent yi yeneen yonent yi mooy li nga xam ne ndimbal gi nga xam ne lépp koo xam ne daal dina ab wali dina ko soxla wala sax dina ko soxla ci yonent bi sallallahu alayhi lay jógee daal dem ci ab yonent ya waaye am boo xam ne day wala ngaan moom jaar directement ci Cheikh Ahmed Tidiane moom nag su paree moom mooy ak dex gatam ngay jóge ci yeneen yonent yi moom day jaarat si moom moom nag mooy jël daal di bokkal ku nekk daal di séddale ku nekk mu bokkal la dara loolu nag ñu ngi koy gëm ci ba aadama juddoo ba léegi ilal abad moo ci moom la jël amul kenn koo xam ne di nga am dara am makaane boo mun am ci ab wali wala bokk ak ndimbal ak jàppandal goo amunte am rek lu dul tamit ci moom la jaar moom rek moo ko am bila bila wasita moom ci yonent bi lay jëlee directement daal di bokkal gars yi ku nekk dox dem euh, daal di commencé fëgg sa dënn da nga fëgg ku fi fëgg dënnam rek nga xam ne euh, dañ koo koo bokkal euh, Cheikh Ahmed Tidiane moo ko mu ko fëgg muy fëgg dënnam waaye Cheikh Ahmed Tidiane moom lépp jaar na ci moom ci jëmmam ja jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay jóge ci انبياء تم دار ci موم لولا آه، شي امر فوتي رحمه الله ركوتي تير مريم في الجزء الثاني في صفحه thani الفضل السادس والثلاثون في ذكر فضل شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وبيان أنه خاتم الأولياء وسيد العارفين وإمام الصديقين وممد الأقطاب والأغواث وأنه هو القطب المكتوم والبرزق المحتوم الذي هو الواسطة بين الأنبياء والأولياء بحيث لا يتلقى واحد من الأولياء من من كبر شأنه ومثور فيضا من حضرة نبي من حضرة نبي إلا بواسطته من حيث لا يشعر بذلك الوالي وحيث كان الأمر هكذا فياك أخي الإنكار على مثل هذا السيد العظيم والإمام الأعظم الكريم نعم gonay اللي ko deunk moy kon lépp rek mom moy ki ñëw di mom ci moom ca am moy mooy imaamu siddiqin ya ñu dëggu ña nga xam ne ka ca jiitu mooy Bakar moom sama imam wax ji mom am bi zaahir bi lool la mooy imaamu siddiqin mom Abubakar ci dugg mom moy ki nga xam ne donc moy jotale mbir ya aqtab ya aw axwaas ya moom mooy alxudbu almaktuum albarzaqu mahtum mom moy khatam awliya bobu dina ci delsi Euh, moom mooy ki nga xam mooy intermédiaire diggante moom ak yenent yi ak awliya yi euh, wali bi nag mën na ko bañ xam waaye moo xam yi bu mag laa ak bu ndaw la ko mën di doon rek xamal ne moom daal euh, lay roola ngaat jóge ci yenent moom lay jaar moom nag bu daal lay mu daal di seddale bokkal ni ñi ñu daal dem mu teg ci nag ne wala bul nag maa ngi lay moytandikoo nga jéem ngay weddi lii <laughs> ngay weddi lu mel nii ci sang bu magee nii <laughs> ak imaam bu rëy bi kon daal lii eh, daal dañ koy gëm rek bu ñu weddi dañ koy weddi ndax kii sàng bu mag la loolu moom ku ko wax ci ab indi ba pare daal di daal di jeexale loolu mooy am nga loo xam am na loo xam ne yaa ngi xalaat ne lii daal wax ju wax ju yéeme la di ju naqaree la yàlla moo tax ngay addu nit ñi ne bu leen nag hmm. xam naa ne suñu gars yi nga xam ne tey ñoom léegi dañoo jóg ne dañoo dañuy jàng xam-xam di waxee ci wàllu xam-xam Eh, di indi xadis di teg di indi téere xam nga ñoom ñoom duñu wax bu leen inkaar dañuy wax rek li ngeen di inkaar nii son demee alquran fii di ngeen ko fekk son demee ci son di ngeen ko fekk son demee ci téere sàngam ci boroom xam-xam yi ay may ko fekk ba duñ mën a te inkaar barakallahu fikum nañ yemale